li ñëpp doon xaar yegsi na mariage dox diggante kii di na balde ñépp xam ko ci wëy waaye itam muy def lu am solo ci réew mi at ki nga xam ni nekk producteur waaye itam nekk wëykat di Bril Fayfo ku xam Bril Fayfo xam Dieyna balde xam leen ci diggante bu yàgg bu ñu sukkandikoo ci information yu jot mooy que ne ñoom daal dinañ def quatre quatre ans de relation relation boobu nag ay eh, gis nañu ko bëri na ay haut ay ba gisoon nañu problème yi nga xam ne amoon na seen diggante waaye itam gisoon nañ problème yi nga xam ne kii di Dieyna Baldé amoon na ko ba tax mu am ci benn doom bu góor mbir moomu nag eh, terewul ki nga xam ne moom mooy Bril Fayfo à chaque fois di gën a fësal mbëggeelam ci kii di Dieyna balde ba tax nag mu demandé ko en mariage Dieyna Baldé daal di wax wii moo waral nag le 12 octobre 2024 muy samdi ñu nar a fësal li nga xam ne rek moom mooy seen diggante mbëggeel daal di lal seen biir ba waral rek kii di Dieyna Baldé wax wii ki nga xam ne rek moom mooy Bril Fayfo Bril Fayfo tamit di invité képp kuy xarit am di jàmm soppe waaye itam képp koo xam ne rek yàgg nga bëgg diggante ñaari sant ñaari woykat yooyu le donc ñu ngi leen di wax rek heureux ménage par anticipation waaye itam di leen ñaanal sëy bu barkeel